satup serigne mor passa baxum mom mo beug yëkëti falafal bi ci digelu serigne Thierno Mbacke nga bismillah jeuf sunu mbok sunu xarit serigne Abdou khodous mbake mu melni ni indi am solo ci taarixu Gamu indi nga am solo ci taarixu yonent bi alayhi salatu Wassalam jangat nga li nga xamne modi moo jamono ku teddi ki di gën gi mindeef ca makatal mukarrama wante top nga ko yittam ba ca madinatul munawara nawara andi li nga xamanteni ni modi li gën ci julit ni modi taxaw taxawayu l'islam modi fa nga xamanteni fa la yonent bi alayhi salatu wassalam taxawale li nga xam ne moo di état islamique wante fi nga euh, yam foofu rek la ñuy daal di joxe kàddu gi sunu mbokk sunu xarit sëriñ mu ñu ngi sant bu baax a baax ak gërëm mbokk yi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñun rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi di rafetlu ànd bi nga xam ne ñi ngi koy ànd ak ñun ci rajo Xassida online Touba Monde bi ak site internet bi di Touba Monde bi TV ngir tatan li nga xamante ni ñi ngi ko fi jaarale ngir ñu mën a bokk jariñu ñi ngi ànd ak yéen ñi ngi ànd ak yéen itam ci waxtaan bi ki nga xamante ni moo ñu dalal fii ci dëkk bu tedd bi di Serigne Mouhamadou Mbacke ñu daf nay dañ ko jox kaddu gi mu daldi di ak mbokk yi bismillah mohammed assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bismillahi rahmaani rahim barke Cheikh ibrahim ñongi ngi wat di am mbekté bu baax a baax ci kaddu gi nga xamantene ne nañ ko té defoon ko ci tambali ba danaka liñ waxon ci tambali bi rek mom lañuy baamu wat di am mbekté bu baax a baax ci tew gi nga xamantene ne ngeen ko ci dëkk bu tedd bi di dëkk boo xamante ne dëkku diine la dëkku yërmande la dëkku sutura la dëkku teraanga la ndax li tax ñu ne dëkku diine la dëkku yërmande la dëkku sutura la dëkku teraanga la bokk na ci dëkk yi nga xamante ne ci dëkki Sëriñ Tuubaa yi la bokk ndax ginnaaw bu Tuubaa jàllee nga xam ne moo ko bëggaloon boppam ba def ci lim ba defoon lépp ba bëggal ko boppam ginnaaw ba it moo joxewaat ndigal ci dëkk bi ñu sanc ko auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallama tasliman mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd ci nuyoo ca moo di nuyoo bi lislaam di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jiital ci nuyoo bi ak uh, siyaar bi sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général kulu murit ñi diko ñaanal yalla sunu borom subhanahu wa taala yagal ko fi lol ci amu and ak wer mom ak mboolem njabootu serigne touba yëpp ak njabootu lislaam bi yëpp waaye ñu nuyu ak diko ko mom serigne abbas mbacké euh ibnu maam Thierno Ibrahima Fati mi nga xam mo fi tok toga yu borom daru ñi diko ñaanal fan wu gudd ànd ak wer gi yaram mom ak mbooleem njabootuk borom daru gi mbokki jullit mbokki talibé yi mbokki bàyyi xel sen télévision bi di Touba Monde bi TV Euh, di lëkkaloog radio xasida online tuba monde bi ñi ngi leen nuyu lu bari di leen siyaare di leen balu ak ci di leen koy bal ci rafet lu baaxa baax and bi nga xam yeen ngi koy and ak ñun jamono bu nekk ni ñu leen ko diggé won nak ci andon ci ak yeen tambali won liggé bobu euh, mu melni ni ngeen ko xamé ñi ngi deulmal nak bis bu tedd bu mag bis bu nga xam yaakar naani at mu nekk bu ñu duggé wéru sahban xel yépp danañ jëm ci fukki fan ya ak euh, juróom waaye bu xel yi demee ci fukki fan yaak juróom itam xel yëpp danañ dem ci jàmbar islam xel yëpp danañ dem ci kenn ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul waaye xel yëpp danañ dem ci ku nga xam ne bu ñu tudd kóolute gu Serigne bi amoon ah ci mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom xel yëpp mën naa dem ci ñëpp waaye nag xel yi ka ñuy gën a jàpp mooy maam Thierno Ibrahima Faati ngir diggante moom moom lu baree bari da caa dox Ah, lu nga xamante ni sëriñ bi ah, féetale woon nag ko waaye xel yi danañ dem nag ci ku nga xam ne ku taxawoon taxawaay bu yaatu la taxawaay bu rafet joxe ca li nga xamante ni moom mooy exemple ci digganteem ak boromam subhaanahu wa taala waye nak itam ko taxawon ci ak talibé ba ñepp xam ko ci ci diko ci roy kon koku moy mam Cerno ibrahim fati kon mom lañuy wajal bisam bu tedd bu mag bi nga xamné at mu nekk ah, bu ñu yeggee ci bu ñu ci fukki fan ak juroom ci weeru saxbaan yaakar na ni xel yu mourid yépp rek danañ déw ñi ñëw da ñëw ñu da danañ ñëw ñi mënta ñëw itam seen xel dana téw fi ci dekk bu tedd bi nga xamné ne dalul muhti kon seen télévision Touba Monde bi TV lëkkaloog rajo Xassida online Touba Monde bi ni ñu ko waxé won ñi ngi téw fi nak ngir fas yéene ànd ak yeen ci jotaay yi nga xamné ne nañ ko magaluk dalul muhti ci édition 2018 seen mbokkum taalib Modou Assane Ndiaye teew fi fas yéene ànd ak yéen waaye ci caméra ci caméra bi Serigne euh, Saliou Ndiaye moom euh, nekkal ñu fa ñu fas euh, nga xam ne tey wala jataay bi nga xam ne fas yéene nañ ko ànd ak yéen ñu fas yéene ci dalal ku nga xam ne yaakaar naa ne bu ñu tuddee aw rek doy na sëkk ci présenté ko ngir yoonu murit xam nañ ko waaye itam diine lislaam xam nañ ko waaye itam xam nañ ko bu baax a baax nag ci liggéey lislaam liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Mbacke mom Serigne Mourtada Mbacke mom euh, Serigne Cheikh Fati Fall mom maam Thierno Ibrahima Fati kon mu don kenn ji sëti borom daaru yi nga xamne ñi ngi taxawé liggéey bu am solo euh, ci diine islam di taxawé fi ci dekk bu tedd bi di dalul Muxti kon mu melni tam waxtaan yi ñi ci and ak suñu xarit di suñu euh, Serigne di suñu lepp rek muy Serigne Modou Mbacke mom Serigne Basirou Anta Ñang momit mi ngi fi tew ñu di nuyu lu bari nak diko mom Serigne Mahmadan Mbacke mom Serigne Basirou Anta Ñang di directeuru télévision bi nga xamne mom moy Touba monde bi tv waye ñi ngi téwé jotaay bi tam ak euh, serigne Cheikh euh, daru di serigne Cheikh ñang kon mu melni duñu euh, guddal dañuy daldi nak jox kaddu gi sunu xarit di sunu serigne di serigne Ahmadou Mbacke mu daldi di ginnaw nuyo bi nak ñu dugg ci tombu yu am solo yi nga xamné ne nañ ko tay jëmele ko ci tayu magaluk daar magaluk màggalug daaru Muxti Edition 2018 mbokk yépp di bayyi xel mu wara nek nak niki ni ñaari fan ci mois de mai ci atum 2018 muy fukki fan ak juroom ci sax ban di wéru baraxlu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 Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al kalami rashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida ngeen jëf mbokk yi and ak ñun ci seen uh, télévision online di Touba Monde bi TV ak seen radio online di radio xasida online Touba Monde bi ginnaaw biñu leen nuyo siaré leen di am loolu mbékté kontante di ànd ak yéen ni ñu baaxoo ànd ak yéen ci euh, waajtaayu màggal Touba édition 2015 di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bis bi nga xam ne ci la Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul euh, waxoon ne at mu ni bu dikkate rek képp ku ko man nanga ànd ak man santale ma sama borom subhaanahu wa taala mu mel ne mbokk yëpp ñu ngi koy waajal euh, seen rajo Xassida online Touba Monde bi ak seen télévision di Touba Monde bi TV ànd ak yéen di doxantu ci dëkk bi ngir yegg ci yenn barab yi barab yu am solo yi nga xam ne ñu ngi fay waajale màggal gi ak taxaw ci liggéeyu Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul bi fi ñu nekk na tey nag euh, mu di euh, mbokki jullit mbokki taalibi yi nga xam ne rewaas muy taalibi yi nga xam ne boole nañ seen bopp di liggéeyal Serigne Touba mu mel ne ci wolof buñ ko dee leeral mooy ay taalibe yoo xam ne euh, métier bi nga xam ne métier woon nañ ko mu di wàllu mécanicien di réparer ay oto boole nañ ci seen bopp boobu màggal Touba gi ñu bàyyi seen waar ci liggéeyal sëriñ bi mu di oto yi ñu taxawu leen réparer leen gratuitement mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ànd ak ñun seen euh, site internet bii di Touba Monde bi TV ak rajo Xassida online Touba Monde bi ñu ginnaaw bi ñu leen nuyoo siyaare leen rafet lu baax a baax ànd bi nga xam ne yéen a koy ànd ak ñun noonu ñu leen ko waxee woon nag ñi gi ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru safar mu mel ne kon ay waxtu yu néew rek moo des ñu dugg ci fukki fan ak juróom ci weeru safar bis bi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul waxoon ne at mu ni bu yegsee ku ko man na nga ànd ak man sant le ma sama borom subhaanahu wa taala mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yëpp di ko waajal di ko bàyyi xel mu mel ne dëkk bu tedd bii di Touba bi ñu nekk fees na dell macha allah mbokk yi bàyyi ko nañ fu nekk ñëw teew ngir fekke si bis bu màgg bu tedd bi nga xam ne mbokk yëpp a koy waajal di ko uh, bàyyi xel joxantu won nañ ci ngoon dem fi nga xamanteni mom modi garasu Dakar jot ngeen gis euh, lu am solo la nga xamanteni jëlé nañ ko fa mbokk yi nga xamne ñom ñoo doon ñew ci bis bi waye itam noonu ñu ko andé euh, won ak yeen itam doxantu ci dëkk bi ci yeneeni barab and fa ak mbokki jurit ak mbokki talibé yi fi taxaw nak modi euh, jumaaji ji mu di barab bu mag bu tedd ben ci barab yi nga xamne Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moo joxe woon ndigal li ngir ñu defal ko ko fi nga xam ne moom moo di dëkk bu tedd bi di Touba Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacké tàmbali woon ko waaye moo Mouhamadoul Fadal Mbacké yàggale ko booba ba léegi xalifab Serigne Touba bu fi jaar rek def ci lu am solo ci euh, wàllu liggéey jumaa ji mu mel ne mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ñi ngi fi teew bàyyi ko fu nekk di ànd ak euh, mbokki ci wàllu bis bi waaye itam fi nga xamante ni nii ah, fi la ñu nekk ah, moom mooy ah, janoo ak barabub Serigne Saliou Mbacké rabilaahu taala anhu mi nga xamante ni yaakaar naa ni ku tudd màggal gi sa xel dem ci moom ngir ni mu ko ñore woon ak soññe bi nga xam ne daana ko ci soññe na saytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokki jurit yi mbokki taalibe yi ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd te a yiw te kàddu lislaam di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke xalifa général kullu murid te di ko ñaanal yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala yàggal ko fi lool ca moo ànd ak wér moom ak mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gi yëpp ak njabootu lislaam bi yëpp mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nga xam ne yéenay ànd ak ñun ci seen site internet bi di Touba Monde bi TV waaye di lëkkaloo rajo Xassida online Touba Monde ginnaaw nuyoo bi ak siyaar bi ñuy am loolu mbégte ak kontante du sant yàlla sunu borom subhaanahu wa taala di ñu baaxee gis bu tedd bu màgg bi nga xam ne ñu ngi ko doon xaar te di ko waaj waajaloon ko ci waaj wi nga xam ne moom la Serigne Touba bëgg bu ko ko waajale njàngum alxuraanul karim waaye itam waxtaane Serigne Touba mbokki jurit ak mbokki taalibe yëpp bàyyi woon ko xel ba jóge fu nekk ba bitim réew fépp ci biir réewum Sénégal tey nag mel na ne bis boobu ñu doon xaar yegg si nañ ci ngi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bis bi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waxoon ne bu dikkatee at mu ne ku ko na nga ànd man sant la ma sama borom subhanahu wa taala mu mel ne eh, ñi ngi nag fi nga xamante ni moom moo di kër Serigne Cheikh Sidil Moukhtar noonu ngeen ko gisee mbokki julit ak mbokki talib yi tew ci barab bi ngir xaar sëriñ bi mu yaksi war ko nuyu war ko siyaare war def li nga xamanteni mom modi joxe sunu addiya waaye itam fas and ak mom ci bisu tedd bi nga xamné ne bisub Touba la waye bisub sante la bisu mbekté la bisu xewal la bisub tiranga la waye bisub xaj aajo lo aduna ak alakhir mu melne kon fuk fara juroom ñatt ci wéru safar moom la ñom xaar yegsi na xamanteni ben la ci barab yi nga xamné am nay màndarga bu baaxa baax ci magal suñu mbokki bu tarxa yi def fi liggéey bu am solo fii nga xam ne fi la ñu nekk mooy barab bi nga xam ne fi la ñu indi woon seen ëddee ju am solo jooju nga xam ne at mu nekk danañ ko indi siyaare ko sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke